dafa ñaaw te maire li muy def ministre du ko def maire li muy def député du ko def député day ñëw voté benn loi dem ñibbi lu koy fey ay millions jox ko ay ay moyens de fonction ba pare mu am retraite parlementaire maire bi amul amul cinq cent mille salaire ñu jox ko ay budget ne bul ci laal dara bul ci xool defaatal lépp ci askan bi bu jeexalee amul retraite parlementaire bu ko kenn kalaamee sax ñu jàpp ko tëj ko kaso. ak honorabilité bi ñu war a jox ki nga xamante ne il est service sànq moom naa wax ne li maire di def député def ko ministre def ko da gis ministre de finance il s'occupe que des finances le maire c'est un c'est lui qui s'occupe la commune c'est lui le budget mooy pré maire bi mooy présenter budget bi ak service am ñu voté ko gouvernement du Sénégal ministre de finance mooy defar budget bi yóbbu ko assemblée défendre ko maire da koy def ci biir goxam donc li li benn ministre di def moom dafa boole lu tolloog fukki ministre ak juróom téye ko